maaleykum mbokk internet Iba bakkan TV yi sama rêve moo réalisé wu moo tax lépp loo gis rek patience si am solo kii dama ko yàgg bëggoon interviewé yàlla xam na loolu waaw dama ko dama ko sopp daal waaw ku ma sopp la dama ko sopp man man Iba Kane la moom tamit non dama laa sopp moom frère tamit ku la sopp la dama yàgg bëgg interview bi say xam nga ah, dëgg la say xam nga ci Why iya, you with def nag si de. non nah, yow iya, li nga si def li nga si bay bay bari na. waaw mais dañ ñun ñëpp ci def rek. defandoo la. defandoo oh, la. waaw et puis danoo toll woon benn moment boo xamante ni. yàlla moo ni woon làmb nag léegi il faut mu gën a jóg. il faut mu jël envolam. il faut mu jël envolam. waaw. Ah. parce que am bi nga moment ñun bi ñuy commencé laa. waaw. dafa fekk moment boobu. waaw. Mohamed Ndao Tyson yàggul ñun yàggunoo moom mu ne day bàyyi. day bàyyi waaw day sa mu sàqee fële. sàqee te gars yi suspendre mu ne kon day bàyyi. day bàyyi. te Tyson moment boobu mu bàyyee làmb ñu bëri dañ noonu naroon a bàyyi làmb. ah wallaahi. mais Bantamba ak sunu làmb. Uh-huh. ñoo ci téye ñu. parce que saa boo xëyee bi jënd xam actualité lamb dëgg la bu mardi ak ah. jeudi ah, nga def la mardi 20 décembre première émission Bantamba mu ngi noonu 2005 waaw waaw waaw 2005. 2005 première émission Bantamba. Bantamba waaw ah, ko fàtte <laughs> mais mais Bécaye. le premier janvier 2006. waaw. ngay rapporté rek sa baat dem. waaw waaw dañ laa mar a guute woon wala. <laughs> non non non non non non xam nga ni boobu mooy sama premier reportage wu. grand combat. grand combat direct. 2STV. 2STV. waaw. te Yékini daan ko. Yékini daan ko jàpp ngemb. waaw. Tyson nga ne Tyson répété waatal commentaire boobu euh, El Hadj ñëw parce que boobu ñoom ñaar. waaw boobu ñoom ñaar soriwul ma. soriwuñ la. ñu ngi à un mètre cinquante. un mètre nga toog maa ngi taxaw ci barrière bi. waaw. ñoom yàlla woo yàlla ñuy bëri ñëw ba ci sama kanam. si mm, kanam. may reporté. Mm, allez-y. waaw mm. waaw te ah, fekk ñoom ñaar ñu songoo. Mm-hmm, songoo nañu bi ñu songoo nag Yékini dóor ci suuf. waaw Yékini du dóor ci suuf. waaw que seen yëkkati bopp bi. Mm-hmm. comprendre nga. dëgg la et puis tey seen tey seen moo boore. Uh-huh. bañ deret di feeñ. feeñ mu sëggaat. mu sëggaat. tey seen daanaan la. Uh-huh. ensuite. waaw bañ sa deret di feeñ mu sëggaat. mu sëggaat. Yékini dóor. dóor. jàpp ci ngemb li tey seen jàppam baaxul mhm. après yëg tey yëkk ni yëkk ni pivoté ah, tuur ko nga nga ma yuuxu ni oh tey seen eh, yëkk na tey seen rek baat bi dem jël waa baat bi noonu booba émotion laa waxe émotion émotion la parce que damaa xam ne combat bu mag la. combat bu mag la. bu mag la tey jeune boobu mu ngi ci xam nga rek. mais boobu xale yi commencé hmm. nañu. di ko miin. di ko miin dëgg la. waaw boobu commencé daan na ko. Hmm. ah. Hmm. Yékini daan Bombardier. waaw. Yékini daan Bombardier daan Tyson. sa premier grand commentaire. waaw moo doon sama premier grand commentaire. et puis comme boobu. mu jaay. moo jaay bantam moo jaay bant petit mbay tëgg ko petit mbay tëgg ko ndeysaan ñu ñaanal ko ah, yàlla na dellu si waat ci réew mi si jàmm salaam man nag damaa yaakaar dañu dañaa jàppoon sa baat déedéet non bu dee danoo jàppoon sama baat waaw fi mu mën a feeña mooy Modou loo Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye 21 mars 2010 waaw waaw waaw waaw bu dee jàpp baat am waaw boobu la mhm. ak eh, am na beneen waaw am na beneen boo xamante ni nii tamit waaw bu dee jàpp baat am na waaw kooku mën na ne. mooy ban. combat boobu daal euh, Demba Diop la. Uh-huh. Demba Diop la. bu hmm. dul bu dul waaw. ci genre combat yooyu bu dee parce que dem naa ba nga xamante ni. Uh-huh. combat bi commencé na. waaw pour ma wax. Uh-huh. mais comme que man nandite la. waaw. <laughs> ma bàyyi consultant yi. ma leen may filaas ñuy wax. fekk baat bi dem na. waaw fekk na baat bi wàcc na. wàcc na waaw day yuuxu mais dara du ñëw. Modou Lo Balla Gaye kañ nga sentir sa baat dem na. Modou Lo Balla Gaye bi bi bi arbitre bi ñu sama baat dafa dem. allahu akbar waaw mais ak naan boo tegloo sa bi ba ne Abdou Aziz daan na Modou Lo boobu hmm. nank laa ko mën a wax mais damay yuuxu. Hmm. pour sama voix mën a génn. Hmm. Aziz Mbaye moom tamit ma ñu répété li mu yor. bu ma ne Balla gay daan na Modou Lo bu ne Balla Gaye daan na Modou Lo. et lan ci def man ak Abdou day am si la si la mën na am. dama ne la bu dee jàpp am na. waaw yooyu laa ko gën a jàpp. yooyu nga ko gën a jàpp parce da ngay gis yenn saa yi artistes waaye ñu ne la artiste bi danoo jàpp baat bi. Mm. xam nga ay africain lañu. ay mën naa am da ngaa waaw mën naa am la ma dajoon ca combat ba. waaw parcours bi ma ci def. ci uh-huh. préparation yi reportage yi tout ça. Uh-huh. ñëw ba nga xam ne ma nga ca fin ba nag. Uh-huh. affaire bi dem affaire bi metti. ndeysaan affaire bi metti. mais da di ay événement yoo xamante ni nii. doo ko fàtte. doo ko fàtte parce que moo la def li nga mel. moo la def li nga mel. mu nekk deux grands reportages yu mag a mag. waaw 21 mars 2010 1er janvier 2006. waaw yooyu du ma ko fàtte. Uh-huh. yooyu ay événement làmb la woon. Uh-huh. am solo. te est-ce xam nga ne yow après boobu la Yékini jël nekk roi des arènes. waaw ci la nekkee roi des arènes. ci la uh-huh. nekkee roi des arènes. ci la mu defee nag parcours bu neex man ak moom. parcours bu neex di ànd. dem nañ fi France. yoon sax maa ngi benn bi Thione Seck la mu àndal. waaw Farba Ngom moo ko tëggoon. pas Farba Ngom. politique ah. Balba Ngom sama benn xarit séeréer. waaw chef bu nekkoon Paris. waaw Yékini sax ma ma ko présenté. dëgg la uh-huh. waaw mais Yékini moo ko ne bu may dem damay ànd ak. sa relation Yékini dafa particulière woon. ah oui. c' est à dire. sama xarit la woon dafa ma bëggoon ma bëgg ko. Hmm. waaw da ngeen bu ma xewlee dama ko koy wax. waaw bu ma tuddee drapeau. Hmm. dama ko koy hmm. a neex. waaw ñun ñaar ñoo waaw. mu yéen a ko def da ngeen déggoo lu mu am uh-huh. buy dem fenn wax ma uh-huh. bu amee événement wax ma bu mm-hmm. kenn ñëwee ci moom mm-hmm. di ko wax dara lu jëm ci kii man lay wax mm-hmm. lépp lu mu doon def yu ci bëri nag vraiment man la daan woo la daan woo ay xaritam sax bu nu soxlaa dara danaan la woowal Alaaji Bécaye dëgg la 2008 moom ak jé moom ak Baboy troisième confrontation bi. moom ak Baboy. troisième bi wër ah. yëkkati bi. yëkkati bi nga rapporté ko est-ce que mën nga ñu si delluwaat wala wala mënatoo ko rapporté. <laughs> déedéet mënatuma ko. waxaatal rek lu bari da doon waaw mooy bi ma naan le meilleur. c'est le meilleur. waaw ah, non boobu mënatuma nga ne Yékini teg na tànkam dama di Yékini. waaw. Yékini. Euh, Balla Balla Balla Beye waaw Yékini day arrière. waaw. mu topp ko mu topp ko ma ne ko ragalu la ragalu la Balla ragalu la la piège la waaw Yékini ngi arrière bu ko topp uh-huh. mais Balla bo moom tam fuggu bi gaynde la gaynde la aka ah, soxor day dem day dem comprendre nga uh-huh. ñu dem ba nga xamante ni Yékini jàpp na waaw ma ne Yékini jàpp na jàpp na Yékini jàpp na uh-huh. ah Balla bii jàpp parce que Yékini après la ma ni maa jàpp may ko mu jàpp parce que bu jàppul du wax ci man. Balla ba booy génnee jàpp am na fu mu dugaloon loxo bi génne ko. voilà ba mu génnee ma ne ko foofu la woon. foofu la woon foofu la woon da nga amoon lecture. voilà mooy mhm. ba mu jàppante ak euh, Yékini. waaw parce que ak bàyyi jàpp bi dóor. waaw. si la ko daane ko daane. parce que yëpp Yékini. Ah. am na combat yu mujj yoo xam xam nga lu mu ko bëree. waaw expérience. Mm, expérience. nandite rek. da ah. ko bëree. Ah. mën a bëre. waaw daan leen. daan leen mais bu ma yëkkatee baaboo yi nag. waaw pivoté ak moom. Uh-huh. dóor ko ci suuf. Uh-huh. xaw ma lu ma koy wax. Uh-huh. nga ne ko c'est le meilleur mais Yékini daan ma ko. Yékini temps de combat. c'est le meilleur. c'est le meilleur tayu ma ko. est-ce que c'est le meilleur. mais c'est le meilleur. ah de tous les temps. ah non pas tous les temps. laam adduna sport noonu la. noonu lay mën ci jamono ji. mais c'est le meilleur. mais c'est le meilleur. Hmm. c'est le meilleur dafay am jamono yoo xam ne yow yaay doon le meilleur. Ah, dëgg la dafaa ngay doonoon na le meilleur. Hmm. Mm-hmm. ku nekk Tyson doon na la. mu jógee foofu si baabu dem si Yékini dem si Bombardier troisième revanche affrontement ba. waaw booba tamit Bombardier moo mënoon. Mm-hmm. Bombardier moo mënoon. moo mëne woon. moo mënoon làmbam la woon làmbam la woon bi mu ko daanee ba daf maa daf maa woo ci guddi gi mm-hmm. daan naa sa copain bi. ndeysaan. ma <laughs> ko non sama copain bi. nan nan la Bombardier moomee woon combat bi. selon ah toi parce que boobu Bombardier am na doole bu mu dugg waaw rëyul rëy yooyu mu daan rëy. waaw. wàññeeku. waaw sec. waaw waaw bari dëgg la waaw et puis dóor fa Yékini dóor bu mhm. garaaw. Mhm. mais rek pour te dire Yékini dafa daawul bàyyi dara. Mhm. daawul xeet dara. loolu moo doon force am. force am bu daan Bombardier jël bu rëy. daan Bombardier caxabal. jël bu rëy tànk bi rek ko. wéeru ko wéeru ko. nga jóge foo ak moom def reportage. boo xam ne boo duggee YouTube ba léegi ay quatre cent 400000 vues ngay gis. nga fekk ko Joal. loolu bokk na sa plus grand reportage yi nga mës a def di wala. bi ma ko fekkee Joal. bi nga fekkee Joal waaw ah, boobu lay wàññi. dinaa fa ñëw moo tax ma moo ma dugg si waxtaan boobu. waaw ko fa. ah 2011 muy añ. muy añ. mu sol sabadoor ba. waaw sol sol jàllaa. jàllaa ba jàllaa bu jaune bi. jàllaa bi bu bi. Uh-huh. Ah, di lekk ginaaram. di lekk ginaaram soo uh-huh. uh-huh. say ginaar di lekk. <laughs> yaakaar dëgg la. <laughs> Ah, ma fekk ko fa ñu mm, waxtaan. waxtaan waxtaan mu neex. waxtaan mu neex boobu maa ngi ànd ak Bruno. ak Ndeye Kumba Fall ak Ndeye Kumba Fall. ndeysaan. Ah. ah. kan moo doon dawal sax. xam nga ban booy moo doon dawal waaye. Ah. askan xaw ma daal. Ah. ci xale yi. interview boobu ban wax moo la gën a marqué si Yékini lu mu wax. wax mooy li ko daaneel. loolu moo ko daaneel. moo ko daaneel bien sûr. si waxtaan boobu. waaw waxtaan boobu ci lay Yékini. Mm-hmm. waxee lu ëpp. waxee lu ëpp. waaw kenn mënu ci dara. parce que daa am ku muy waxal mais mënu koo wax. Hmm. ba léegi tuddul Balla. déedéet tudd ko et puis daf bi muy wax. Hmm. ni daf kenn mënu ci dara. waaw am na ku muy waxal waxul ak sëriñ yi. mais communication bee baaxul. nit ñi interprété ko ni. Hmm. sëriñ yëpp la wax. yax ya waxul sëriñ yëpp de xam nga làmb dafa bari wax xam nga am na benn làmb Balla Beye boo gis sëriñu Yékini ci cummikaayu. baabooy baabooy waaw voilà. xamoon naa tur bi dinaa tur bi dina ñëw. waaw léegi Yékini. yooyu la doon expliqué. waaw amul kuy def xaw ma lan. waaw las xaar xaw ma daal. ak kuy def nangam nangam. waaye kenn mënu li ma li ma nar a def kenn mënu ci dara. booba waxul ak sëriñ da doon wax ak kooku. dafa am ku mu doon waxal. Hmm. mais comme que moom olof bi mënu koo wax ba mu leer. waaw. gaa yi dem nag mi voilà sëriñ la wax kenn mënul ko dara. ku ci ah. def nii ku ci def nii. Hmm. et puis defet ñëw. communication moo baaxul. communication noo foofu Yékini a côté la jaar. contre Balla Gaye. Yékini à côté la hmm. ah. côté communication bi début ba fin dara baaxul. dara loolu loolu lu koy waral. ak koo xam ne moo dàq communiquer. waaw day am. Hmm. day am day combat bi ëpp xëy na doole ji kii. te combat bi bi ñu koy taxawal. Ah. booba ni moo gën a nekk en position. en position mais booy bi daf ko ñeme. booy ah, bi daf ko ñeme. woon booy bi daf ko ñeme woon. moo taxoon ñu ko noonu. Ah. di ko wax di ko di ko dépassé. di ko dépassé naan ko ay bun fukki nag. Mm-hmm. ay nangam di ña ñay xaw ma nan la ëpp ak. affaire yooyu dëgg la xam nga. di mm-hmm. ko perturbé quoi. di ko perturbé yu la kenn daawul def. mu de la ko def waaw. waaw yooyu la. yooyu la yooyu la moo gënoon perturbé Yékini. Yékini nga jóge foofu. waaw. nga am problème ak Yékini mu jaaxal senegal waaw xam nga loolu loolu loolu nan la mën a demee noonu. loolu mooy seytaane rek. seytaane doomu aadama bi. waaw nit dong nga. te man damaa bari ay contentieux ci làmb ji. dinañ ñëw moom laay wax gis nga mbër. bu nekkee xale souvent. Mhm. sama xarit ngay doon. waaw. mais booy dem ci fin de carrière. Uh-huh. dootoo doonati sama xarit. Uh-huh. xam nga tax. lu tax dëgg nga nangu woon ba nga doonee gone nangootoo ko bi nga doonee mag. Uh-huh. kuy bee màgg. waaw kuy bu nu màggee dañuy mbëkkaate. dañuy mbëkkaat. waaw te du noonu. du ñu nangu bokk kenn mbal ñoom ñëpp ci yem na mbër yëpp noonu lan mel. Iba. reporté naa mbër. waaw mu bëre bëre wanewul benn réflexe. waaw. ma dem ci télé bi ma wax ko. waaw jabaram woma saga ma day mbeur mom mbeur jabaram. mbeur waaw. reporté na mbeur waaw xamna ma ngi lay deglu bu ba ba lamb je jeex. Mhm. ma def ci commentaire. Mhm. mbeur momu daanu jabar bi woma saga ma day allah wo mhm. ma jege. wax ko ko tamit. waaw. ko ko tamit sama kilifa la sax. waaw. ma Ndiaye mii. madame Ndiaye bu bu bu 2STV. bu 2 uh-huh. mais après ma comprendre ni. Mm-hmm. après ci laa xamee ni man te kooku. waaw comme li ma lay wax rek. ba mu mm-hmm. tollee ca jamono yi di daan. waaw sama xarit la woon. Mm-hmm. mu tolloo si dërëm. waaw mais bu ñu demee <laughs> ba yegg yenn niveau yi. waaw bu ma waxee dara rek. dañ koy jàppee ni dama nga lay xeex dama laa bañ. damay nangam nangam. mër mu foo leen mujjee après. non dara. après j'ai compris j'ai compris bi dégg nga si lu ne lu amul lu ma ci déggul dan lay rey ak mhm. jot nga ay menaces boo ñëwee làmb ja na la rey yow waaw waaw jot nga ay menaces de mort ay menaces de mort ñaata menace de mort ah, ñun nga bañ wala nga bëre ba pare mhm. am na ci mbër yoo xam dañuy dem toog ak ku leen di saagaal waaw ma toog fii nga woo ma fii laay toog sama kër mhm. nit wo ma allo. mané allo ngén mo ak yow buma la jappé dina dinaan waaye jaar fu garaaw. fekk na mo mbeur bi ñoo tok mais xam nga man nak sama réseau da no garaaw. waaw après damay comprendre xam affaire bi fan la joggé mais yow luñ lay menacé de mort yépp waaw luñ ñu après dinañ ñëwaat ci waxtaan. ah Bek dafa am appel. bo am importance dinañ ñëwaat ci deuxième partie bi. waaw. Ah, ñu ñoo ngi toog Bécaye eh, toujours ak eh, deuxième partie émission bi Bécaye ñu tollu nga ne da nga doon recevoir ay menaces de mort. waaw yu bari mais man mosuma la gis nga xam moo xam ñu daan la ah. moo xam bëreegu leen ah. yooyu yëpp wala ñu daan nit mhm. waaw a compte la te ñooñu am na ay temps mhm. daan wax ñoom laa ñoom laa mais man mosuma la gis nga ànd ak garde corps yow te te toujours ñëw garde corps ah mais ñu lay menacé a rey te mosoo dem police eh, clamé yow bu may wuti ah. dañuy nappaate dañuy nappa foofu laa waaw ci dañuy nappaate. waaw waaw. ma ah. ciy rey it man la leer du am garde corps. maa ngi nii musuma la gis ak garde. ah lu may doy non yenn saa ma am sa am naa sa benn waay boo xamante ne. ah day ñëw topp sa ah, ginnaaw ah, ah. <laughs> léegi léegi Bécaye uh-huh. ñu toujours ñu des si Yékini parce que dafa am solo seen relation. waaw ngeen point de presse. waaw. nga dégg fa li nga fa dégg waat fa waat bu dul Iba jàpp ci Iba jàpp ci waaw Yékini mhm. vraiment boobu erreur la wax naa la waaw wax naa la manque de communication bi ak tout mhm. mais pour sama relation ak moom waaw vraiment fi ñu toll nii on est ah nice ci jàmm ak salaam yàlla na continuer en paix amiin man ak moom amuñu benn problème uh-huh. vraiment te man baaloon naa ko baaloon na ma dëgg la comprendre mais avant combat bi ngeen ngeen réglé woon lépp de moo Balla Gaye 2 <laughs> Iber yaa may dégg uh-huh. bëgguma dellu si waat ci sama relation ak Yékini mm-hmm. parce que vraiment mm-hmm. yàgg na yàgg na te nit ñi mm-hmm. accident de la de la vie la accident de la vie sax bu la neexee ah, buy am ci diggante ay relation waaw mais ñun sax nañ sant yàlla waaw am na ñoo xam ne ci la ñuy jote bàyyante pour toujours dëgg la mais làmb ji seetlu dañuy jàkkoon joxe bu métti mais après dañuy juboo dañuy juboo man nag xoolal ci conflit yooyu am naa ci pakket ci ay mbër mhm. amul eh, bu nii bi moo feeñ waaw mais bii ma lay wax ni mbër boobu jabaram daf maa saaga waaw c'est plus moo gën a garaaw moo gën am na ñeneen mhm. ay mbër yoo xam ne dañ naan dakaay mooy seen moom la faral waaw te damay am ak ñoom ay problème mais du kenn du ko yëg man ñoom mhm. dañ yow mosuñu la taxi reporteru géwél yi mbëru géwél yi non non pas mbëru géwél yi ay mbëru Modou loo ah jiñ nañ la yow mbër Modou ah mais kat xam nga ni jiñ nan ma ko yaa ko gën a xam. waaw Modou Lo moom leen ma ko jiñ du jeex. xanaa combat ak Baye Mandione ma la. mooy combat. ak Baye Mandione coow lu bari la. comme ah. avant même bi ma naan kii arrêtera Modou Lo. Ah. tout ah. Lo xarit bi ma ko tuddee xarit Lo. du leen neex daal. du leen neex. te yooyu. moom laay wax ñoom dañuy fàtte ne ñun tamit. Ah. mais dañuy liggéey pour wane suñu bopp. wallaahi journaliste day waane. day waane. reporter day waane. da ngay naturel mais da waane. dëgg la Ablaye Diaw technicien reportage dëgg la. Ah. man aussi bi mu ñëwee. ci wàllu làmb Ablaye Naar. ndeysaan El Hadj Moustapha Ndiaye Ablaye Naar uh-huh. Ablaye Naar kooku rëb technicien la woon ndeysaan reportage uh-huh. bu dee commentaire uh-huh. yi bu ñuy bëree ma ci kenn mais boo daanee dinaa ko neexal waa neexal boobu ma koy neexal nag ki daanu ki wax dara day kontaan mais ki daanu danaan dama fekkee nga ñetti génération ñetti mbër yi nga xam ne vraiment duñu laalante Eumeu Sène Modou Lo Balla Gaye 2 fekkee reporté nga leen seen dernières années yëpp fekkee nga seen début Eumeu Sène laa njëkk a commencé moom nga njëkk a commencé Eumeu Sène maa ko njëkk a invité rajo si rajo wal fajiri mu jóge championnat d'Afrique ma invité ko mu jóge Pikine ñëw mhm. doon booy am nekk 17 am 17 ans xale la ma invité ko bu ñëw toog ah. ñuy waxtaan avant muy bëre kayre la loolu avant muy kayre ba balaa muy bëre si lay doon mu daanee mhm. Ousa Ousa daan bi mu daan Ousa léegi nga fekkee ñett ñu ës ñooñu. ñett ñooñu ku mën Balla kii coow li bari na ku mën. ku ci dàq bëri. waaw Balla Eumeu Sène Modou Lô. ci dàq bëri. jafe na. jafe na te ñoom ñett yëpp roi des arènes lañ. ci nekk am nga noo mane. loo mane. am nga loo mane sa morom. Mm-hmm. Balla moo mën Modou Lô Modou Lô moo mën Eumeu moo mën Balla Gaye foofu rek nga koy teg mu jeex. kon kenn du ko mën a kenn du ko mën at. bu ci sonn. Ah. parce que leneen loo ci wax. Ah. xam nga làmb amul démocratie. waaw làmb amul am amul wax sa analyse. Mhm. daa far rek. daa loo wax ñu ne dafa far. Mhm. waaw parce que dafa bari ay illettré. Mhm. et li wër mbër yëpp genn wàll gi ay illettré lañu. jànguñu jànguñu dëgg la comprendre nga. dañuy waxanteeg mbër sax di ko booleeg nit. di ko jax mbër da gis mbër mu nekk ci point bu baax. say say say say say ànd yàq ko. sa ànd ak Eumeu Sène Gambie. Yaya ah Jammeh ah non c'était super. c'était super. c'était super. moo la woon de ah bi ngeen daane bi daane Balla wala. waaw booy na tournée ci biir dëkk bi mu mel ni. Ah. ah non musuma gis nit ñu mel noonu. bi ngeen demee Gambie. ah woy mbooloo mi génn. teeru ko. waaw et puis yaatal ko yoo. mais nit ñi dañoo bari woon. man damay dem ba ci yàgg sax ma ne sama chauffeur may retourné. parce que man lii mënu ma leen a topp doo xam mbooloo mais bari nit ñi ñoo bari. adduna bi yëpp génn. Gambie gépp génn pour Eumeu Sène et puis c'était super. ngeen dem Palais ànd nañu Gambie ànd mmh. waaw seen seen demu Gambie boobu am am ngeen fa xaalis bari de. non mmh. fa cent franc. Mmh. xaalis lañ fay jële non jëliwuñ fa xaalis man après la ma Yaya Jammeh invité. ah après Yaya da invité. waaw dafa taxaw ci kaw podium bi. waaw yekk ko neex Sénégal. wala suñu président de la république. Hmm. Macky Sall. waaw ah Macky nangam Macky nangam Macky nangam wax. Hmm. ñëpp a ngi toog. Hmm. délégation bi ñun matoon nañ foofu cinquante ci kaw tribune bi. plus la tous les membres du gouvernement de Gambie. plus les invités. alors ñëpp toog Yaya Jammeh wax ba pare ma jog taxaw. est que deretu géwél bi. waaw non damaa jóg taxaw ne ko président Yaya Jammeh Sénégal ak Gambie ñoo bokk ndey ak baay. am na ñu sant fële Cissé. am na hmm. ñu sant Cissé. wallaay am na sant Mbuub am na ñu sant Mbuub fii. dëgg la am na ñu sant Jaabi am na ñu sant fii Jaabi. yaay jàmme gestu xol ma ni eh, mais kaay. wax ko fii ci micro bi. dëgg la bi may dox di ñëw <laughs> Eumeu Sène xëm na <laughs> Lamine Samb xëm na. caa <laughs> ah, ñàkk na. pour ñoom. doo génn gàmm bi. dootul génn dañ nii rek. parce que yéen a am ak affaire ak Yaya. Yaya le dictateur Yaya wax ay tontu un président de la mais. bobu li Yaya wax sunu président. waaw naqari na ma. dama xol ni sunu Yaya. Sénégal ak Gambie ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. wallaahi ñoo bokk lépp. Uh-huh. wa Yaya nak bëgg diviser affaire bi. Uh-huh. japp digënté mak Macky Sall. mu bëgg def ci gënd Sénégal ak Gambie. mënul nekk ma mais non. ma uh-huh. ma tass waaw jokna après ne waxal. ma xaw koo rey xam nga yaay xam nag dafa bëggoon uh-huh. ku ko jaay ku ko jaay nuyoo uh-huh. ma ne ko asalaamaaleykum président ndeysaan nga jël accent ba ma ne ko excellence uh-huh. président El Hadj jëjëjee <laughs> yaayaa ma koy def par benn benn par benn benn yaayaa di funki naan mm-hmm. kontaan quoi. ndeysaan ci ni ma koy. taggee taggee. ndeysaan ma wax ko ma ne ko nag président. Ah. ñëpp dégg ma ne ko jóge tribune bi bépp. ay Gambien loolu waaye ay Sénégalais loolu. wallaay ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. Mhm. parce que ñoom dañuy politique. Mhm. ñoom ci kaw la nekk moom li bëgg Macky mel ni Macky du ni mel. déedéet te moom li mu bëgg mu me ni mu bëgg mu mel ni moom du ni mel. Mhm. mais ñoom donc seen problème la. seen problème la et puis yaayaa moment boobu. muy Macky Sall. waaw Abdoulaye Wade. Mm. Abdou Diouf. Mm. faale wu ci kenn. faale wu ci kenn. waaw te ñun nag. on est Sénégal. on est Sénégal ma jóg défendre suñu réew. après nga jógee foofu mu recevoir le a après bi mu ñibbisee. waaw parce que damaa wax ba pare mu si xool ma ni yow di nga xam man maay kan quoi. noonu la ma ko waxee di nga xam man maay kan quoi. ma ne ko baax na président. sëpp ya sëpp Lamine Samba ne yow yow yaa takk ñaari montre yi di kii. Ah. tooñ ku caa nag ah. ak ni muy niroog yaayaa waaw comme vraiment affaire bi neex ju ah, neex bi ma ñibbisee lan ma woo ambassadeur ndeysaan Saliou Ndiaye ambassadeur Sénégal bi nekkoon Gambie waaw moom ma woo ni ma ni ma président Yaya Jammeh moo la soxla. waaw mu ne ko soxla ci demee nen. Ah. mu ne ma daf la invité. Ah. après laa fa dem mu teral ma ci la ma maye oto. may ma xaalis. Ah, loolu jikko yu africain. baax jëf ju baax. ma kontaanoon lool nag. ci moom ci loolu. ndeysaan. ndaxte nit la teralee. après na la ne mu ne ma li ma neex ci yow xamal lu ma neex mu bi ma wooyee. Ah. xamal lu ma ci yow. Ah. yow dëgg rek ngay wax waaye. Ah. yow da ngay wax dëgg quoi. ngay wax dëgg quoi. mu dëgg rek ngay dox. waaw seetoo ci kii seetoo ci kii. dëgg la waaw man de loolu laa mel ne président. boobu man moom ñoo toog ak mm. maître El ak so cabinet waaw ah, mais frère Hadj nga àndaloon moom la moom daf ko invité waale daf ko invité waale waaw ah, c'est mais ñëw na mu may ma teranga mhm. vraiment ma gërëm ko ci ñaanal ko mm, dëgg la transition boobu la dugg ñu dugg si tuuti politique ah, bu la neexee te pour un troisième mandat du président Macky Sall man troisième mandat man mënuma ci wax ndax man du ma constitutionnaliste du ma jàng jànguma droit mhm. xaw ma lu ci wax waaw moo tax ñemewuma ci dugg hmm. li charte bi wax daal waaw na ko ñëpp respecté li lan la charte bi wax non ma li sax waaye yow doo ma sonal nga may sonal man ngay laaj li sax dama nga laaj ko professeur Ismaïla Madior ah. wala wala yeneen professeurs yi nekk université ah. lan la charte bi wax l' essentiel mooy le président de la République Macky Sall ah. liggéey na liggéey na man ci loolu laa mën a wax waaye ndax dina def troisième mandat war na ci droit am ci droit nan xool constitution bi li mu wax yow en tant que citoyen en tant que citoyen. waaw Macky liggéey na. liggéey hmm. fi kenn mosut a liggéey. Hmm. on se dise la vérité. Hmm. il liggéey am nga foo échecgé. foo foo liggéey parce que mënoo baax li fépp. Uh-huh. am na fu mu échecgé. parce que li fi am nii amu fi woon. amu fi yi fi am amu fi yoon yi ni mu demee demeewul woon noonu. dëgg la waaye lu jëm nag ndax dina am na droit. Mhm. dem def troisième mandat wala am amul droit bi. Mhm. loolu nañ dem seet professeur d'université yi. Mhm. ñu waxal ko seen bopp. dëgg la man xaw ma ci dara. xamoo ci dara waaw ci li ma xam nag moom. mooy liggéey bi. dossier Adji Sarr Sonko. dossier mun dañ ko war a ubbiwaat wala dañ ko war a tëj rek ah. non nan ko non non tëj. dañ wax li leer parce que Adji Sarr mënul Sonko gratuitement Hmm. Sonko di toog nit ñu koy accusé hmm. non loolu nan ko ko atteel mu leer nañ mu leer nañ ah oui parce que et puis Adji Sarr doomu Sénégal hmm. sénégalaise la sénégalaise la sénégalaise la waaw mais ñi fi ñun fi tuumaal yëpp dañ leen a atte waaw yooyu le problème kon Adji Sarr moom it day yomb trop mu tuumaal nit ba ci ak ñuy ñëw ne ko non léegi classé nan xanaa ci kaw ñu bëgg jàmm nag ñu waxtaan ci seen biir ñu classé ko Mm. waaw loolu mën naa kon nañ ko classé. bu dee nii. Mm. bu dee nii ñoom mën noo waxtaan seen parce que dafay yàgg. na yàgg na. amul juge bu ko jugé. Mm. ah ah safar laa gisuma kenn ku ci wax dara. lu dul saagante xasante. affaire baa ngi ci télé yi mi ngi ci journaux yi mi ngi ci réseaux sociaux. te seetlu leen. waaw. dossier Adji Sarr ba mu ko fi tuddee ak tey jii. 2020 ba léegi. ñi ci wax ci réseaux sociaux yi Je preuve nangam ak kenn des moo xam nga nekk ci ñi fa des ak je Sarr moo xam des Sonko Ñep li ñu wax dara ci. ci ba légui. Ah, preuve amna photo des enregistrement du kenn amul dara. Sonko rek. xam naka la des ku ci wax mm. day ñom ñaar ño xam naka la démé mhm. légui nak et puis quatorze personnes dee nañ ci. mu na renil dafa ñaaw 14 mhm. personnes. Mhm. ci benn problème mu viol. ci un pays comme le Sénégal ak maturité bi am Sénégal. Tito, woon amoo woon tiitaangi événement deux mille mars 2021. mille vingt parce que demoon nañu ba nga nga bu continuer. loolu mooy indi guerre civile ci Sénégal. ñu ne mooy dem ñu toj kër dem ñu kër loolu boo lakkee këram. Mhm. dañ ñëw moom it. Mhm, day def lakk sa kër day ñëw lakk sa kër. mu nekk ay lakkante. mu nekk lakkante lakkante moo lakkoon Burundi ak ak. moo lakkoon Sierra moo lakk Libéria. moo lakk Libéria moo lakk réew yooyu moo lakk ay am Congo Kinshasa yàlla am ñaan. wallaahi. yàlla am am ñaanal mhm. mais noonu mooy ci loolu de ay dañuy dem taal kër diw. boo taalee kër diw moom it day taal kër diw. kon politique yi mun nañ taal réew mi de. Ah, mais réew mi buy tàkk fu muy jóge ci politique ci politique rek lay jóge jógeegul ci football te dara seeni bëgg na am i ndombal ñi ko yor bëgguñu koo joxe ñi ko mm-hmm. yorul bëgg nañu koo jël mm-hmm. ku ci nekk dekk à l'extrême mm-hmm. te extrémisme baaxul baaxul dëgg la extrémisme baaxul ma lii moo fi am par la force lii du fi am par la force réew mu mu am day tàkk 2024 ragaloo ko Sénégal mais xam nga nag man c'est-à-dire loo mos a ragal après day ñëw romb la. Hmm. élection yi passé lu ma ko. dëkk bi day yëngu nangam nangam. Hmm. élection municipale élection législative yëpp. Hmm. nangam nangam après. non boo gisee ma ne 2024 ndax ragaloo parce que troisième mandat mooy problème bu Macky ne day présenté wu ñële na du nekk. waaw bu boobaa conflit ragaloo bu boobaa. Hmm. bu kenn nanguwul bàyyi. waaw ah mais ñu xool rek bu nangoo jël responsabilité taal réew mi. Hmm. l'histoire retiendra. l'histoire retiendra. l'histoire retiendra. Hmm. bi fi diw nekkee président. la fi nangam am. bi fi diw nekkee opposant ci la fi nangam am. bi opposition bi melee ni radical. moo fi indi li pouvoir radical. moo fi indi li ah, bu boobaa ñoom nan gàddu responsabilité bi. histoire dina di dina leen jàppale. am na ñoo xam ne tey jii ci wàllu histoire. Mhm. seen i njaboot sax bëgg lu ñu tudd leen. dëgg la ndaxte yàq nañu yàq boo xamante ni nii. Mhm. am na réew yo boo demee Congo. Mhm. bokk ak Mobutu neexatu fa. Côte d'Ivoire nañ ko defoo. ne ko taaloon. waaw gis nga tey jii. Watara ak Bagbo. Mhm. ña ngay waxtaan. ña ngay waxtaan. pour chaise boobu rek. te jarul jarul bakkan. te boo génne woon nañ ko fi moog jabaram. ak bu ñaaw ko fii. Mhm. France la. waaw France la France nuy jaxase. France saa histoire boo dégg Afrique c'est la France. le pays colonisateur France faral ki ne ci pouvoir bi. Mhm. parce que mooy defar bagaasam. du bëgg ku ko laal. que la jóge fële di jaay révolutionnaire. ne da koy laal. coow la tëb coow la tëb ñu sonal mm. ñun ñun ñun dem nañu mm. ñun décollé nañu de mm. <laughs> ñun xamul ne sax ñun décollé nañu Sénégal décollé na décollé na mais malheureusement ñu nu jiite xamuñu ko xamuñu ko xoolal ñun ñun ñu ni ñu ni jiite sax ñu ci bëri ñun ñoo leen ëpp xam-xamu yow réew xoolal député yi ñu bàyyi à l'Assemblée nationale ay député yoo xam dañoo mel ni ñu nekk salon défilé de mode jigéen ñu nekk défilé de mode góor ña ku ci gën a xamadi nga di kii loolu mooy lan loolu keroog bi nga seetaan assemblée nationale lan nga si am ah, am gàcce man waa ñuy noonu jiite mhm. jàng ñi dem leen ngeen def politique mhm. bu ngeen ko deful ñu xamul dara ñoo leen di jiite la c'est la réalité boo xoolee assemblée bii mhm. bu doon dissoudre ko yomb na war na mais dañ du assemblée nationale dëgg la non non lii du jigéen ñooñu góor ñooñu dañuy xeex amul benn diplomatie. day am hmm. diplomatie jiite du jiite du caaxaan. du caaxaan président Macky Sall mos na la recevoir. déedéet. mos na la recevoir. bu woowoon Bécaye Mbaye yéen ñaar rek nga nekk si nekk. ak contexte politique bii. troisième mandat. yow en tant que citoyen koy digal. sama xalaat. non dina koy wax duma ko wax fii. Ah. mosuma woo nag. mosula woo. mosuma recevoir. Hmm. waaye dina nii gisee. ah da ngeen di gisee. waaw ci yenn façon yi. Marème mm-hmm. fay Sall ma on. Marème Faye boom <laughs> recevoir dama. waaw ah, recevoir ah, recevoir dama waxtaan nañu. Mm, waxtaan nañu ah, te jigéen ju baax la ku jàppale jëkkëram. dëgg la mm. nag boo nee jabaru président dafa baax. Mm. danañ woy da ngaa farak moom. et puis opposition tey bi dafa neex. ku farak ñoom yaay démocrate ku farul ak ñoom doo démocrate. dëgg loolu baaxul. loolu baaxul waaw maa ngi leen gis yee fa. ñu song benn maison de presse ñu ñooñu dañ leen a contre mm. dañoo équilibre donc mm-hmm. boo équilibré rek fii Sénégal mm-hmm. boo équilibré ñu ne da ngaa contre mm-hmm. mais ñëpp mun noo ànd ak ñoom il faut mu am et puis Sénégal dañuy gis kuy xuloog média ci homme politique boo demee aux États-Unis Washington Post day far gos ñee far droite journaux yi noonu la ñuy dunde en Europe Mhm. Figaro ñëpp xam na ne journal de droite la ah. Libération ñëpp xam na ni journal de gauche la coow du jib fii boo ko fi defee mhm. ñu taxe la de xawma mhm. lan anti démocratie c'est ça la démocratie gis nga intellectuel yi dañuy nax ñun ñu jàngul ñi <laughs> dañuy nax ndeysaan dem nga droit journal jóg ni ah. way pouvoir laa àndal ah. di ko bind beneen journal jóg man opposition laa àndal di ko bind c'est la démocratie ñu génnaat tuuti si wala dugg si la ana Luc Nicolaï yéen a ngi dégg. Luc Nicolaï gëj naa ko gis. da ngeen am problème. déedéet amul benn problème. Ah. <laughs> comme maam ak ama Luc da kaay ma yëgal. noonu la ñuy mel Luc Nicolaï fii la dëkk. waaw sama xarit la. dëgg la waaw saa yi ñu mbëkkante. waaye ci jàmm rek nag. jàmm nag waaw jàmm lay mujjee nag. ah loo si am ban nouvelle nga si am Ama Baldé Modou Lo. non Ama Baldé liggéeyuma ci benn yoon ak Luc ah, ban ko taxawale ah, ba ba mu jeexee. 2019 ba léegi. liggéeyuma ci ak moom benn yoon. ñeneen la ci doon liggéeyal ñooñu mu ci doon liggéeyal xam naa ñooñu dinañ la ci wax daal. Ah, mais man xamuma ci daal. combat bu amul histoire la am du am lu mu manqué. non dina manqué dina mel ni Eumeu Sène ak Moustapha Gueye bi amul. bu 2008 bi. moo ma gën a naqari. bu El Hadj Ndiaye Rose bi. combat boobu. Ah. rek moo ma naqari. le technicien la choc des techniciens. waaw boobu rek man na xar li tax amul. amul uh-huh. seen tafa. Mm-hmm. te def na def nañu lépp. lépp lu dul. le dimanche boobu tam CNG na ko sauver. Uh-huh. comme que ñaari mbër yi lekkoon nañu avance. lekk nañu avance mënoon na ko sauver. Uh-huh. def ci xaalisam. ko. buñ paree mu génne lim moom. mu génne am na fi. Mm-hmm. Modou Lo Bombardier. waaw dañ ko sauver. dañ ko sauver. et boobu am na yeneen yu ñu sauver. Mm, dëgg la noonu mm. ministre bu bees ñëw CNG de lutte euh, da ko war a da ko war a confirmer wala dafa war a andi yeneen. de fin octobre lay jeex. fin le octobre. waaw le contrat octobre waaw. ah waaw le octobre waaw. octobre. 31 octobre waaw 31 octobre. waaw waaw léegi ci lay jeex léegi nag. c'est hmm. au ministre de voir. Hmm. ndax da comme que mi ngi doog ñëw ndax da leen fi bàyyiwaat pour un an. Hmm. wala day dem. changer complètement dem jël keneen. mais de toute façon ku mu mun na jël. bu mu def ni Matar defoon. parce que Matar dafa tànn. waaw pour consensus. waaw waa jël jël jël jël ñu nekk ci làmb boole leen mu doon CNG. waaw mais non man li ma gënal. mooy nga nommer un cadre. un leader. Mm-hmm. mu ñëw tan mm-hmm. ñu mu bëgg liggéeyal. mu and ñu mu mëna andal liggéey. mu and mm-hmm. ak ñom liggéey. parce que sinon ay masla mo fay nekk. bëgg nga dugg biir CNG. ah bien sûr. parce que inter ah. bureau bira bëgg nga nek président CNG. ndax bëgg na nek président CNG. ah non dama yaaka sax bëgg mus nga dugg bureau CNG ndax bëgg na sih président CNG ak li nga def ci lamb yu non je ne pense pas. intéressé wu la. non non man de mooy man li doy président CNG. ah mais nitu làmb nga te xam nga làmb. man bu ma jógee ci reportage man léegi ma génn. ah na nga jël retraite. ah oui après xam même du ma fi nekk rek di reporter di reporter di reporter damay dem defi leneen. defi leneen. waaw ah, waaw. ana ana ana rasta yi. rasta yi nga duggee ah. woon France. ah non boobu booy la. ndeysaan. boobu booy la mun nga ñu mosal tuuti rasta yi nga dugg biir France. waaw non non boobu maa ngi Paris. Ah. c'était les années quatre vingt trois quatre vingt deux quatre vingt quatre. mu mhm. nekk xale nekk biir Paris. ndeysaan yooyu xew. Uh-huh. waaw ma ma def noonu. ala Bob Marley dëgg ma tërëj. xaraw uh-huh. gi. Uh-huh. Ah. mais jaar jaar la. jaar jaar la. jaar jaar la. Euh. Bob Marley est euh. Bob Marley c'est le plus grand chanteur de tous les temps. Il blues. reggae euh. mbala, soul Bob Marley. comme philosophe. <laughs> Bob Marley. <laughs> gis ko way Bob Marley. c'est non non. nga di ah di di des moments de difficile. bien sûr hmm. immigration dafa dafa migration dafa métti mais teewul lu mu métti métti nga liggéey nga jox say waajur nga liggéey nga jox sa njaboot uh-huh. loolu mooy mooy bénéfice bi te doo ko rëccu ah doo ko bis dina ñëw di xëy na uh-huh. mais après day neex day parce que doo defal dara baax ci waajur ba pare uh-huh. te doo ko gis teyër bi fàtte nga ko di ñëw déedéet ba léegi lii ma sol mën naa koo ñëw mën nga koy ñëw <laughs> ba kat <laughs> mais kontaan naa El Hadj man ma la gëna contane Allah fi contane na mbëri mm. saison bi ubbi mm-hmm. amma ah, bal bal la boy ñaan bal la boy ñaan dañu mësal tout wala da nga bo mom dafa saf non dafa saf kay dafa saf hein ah? baña saf bal boy na dafa saf de ah neexul ko ko ki analyser neexul analyser 50 50 parce que amna experience dan ku ne hmm. te boy ñaan xalé moko gëna nek xalé deug la 50 ah. 50 mm-hmm. la de ah ah way ku ci nek ci ñoom ñaar nga lo wara mëna moytu sa morom. hmm ba la la wara moytu si boy ñaar. ay ah, na entraîner ba am doole. entraîner ba am doole combat bobu doole koy daan. doole mo koy daan. doole mo koy daan. hmm combat physique la. combat physique. combat physique la. Mhm. bu dé bëri bi mëna mën na ko. Balla. waaw la nak bëri Balla la dé ah, mën am la motax sank bi ngay wax di diw diw ak diw ak diw ak diw. mënuma mhm. laa wax diw a dàq bëri ci Sénégal. waaw mais dàq ko bëre yombul. dàq ko bëre Balla yombul. Oh, gis nga bi muy bëree euh, Gris Bordeaux xam nga nu mu daanee Gris Bordeaux. waaw mu daanee woon Ousmane Diop. da ko daanee daa gudd bii gàtt. Mm-hmm. mais ma toog di seetaan mu benn commentaire bu ko wax. ndeysaan mu ne oo oh, yéen yaa yi gis parce que dafa dafa rotation bi mu def ci suuf. waaw bële ca kaw la ko def la ko def. Mm-hmm. di tëb di bonde. di tëb di bonde booba xale la. Ah, mais puis bi mu demee physiquement xam ne ne taxawatul bu baax. Ah. léegi mu ne xaaral. Boy Niang lu ko mën a may ndam ci combat bi. Boy Niang. Ah. lucidité ak audace. ak audace audace. audace c'est-à-dire mu jël ay responsabilités audace rek. Ah. jël say responsabilités. amul kon amul ay yedd ak ay. ay conseil ay con non audace. audace moo koy daan loo. Balla Gaye ku koy daan boo amul audace doo ko daan. Hmm. ah oui seetal ñi ko daan ñam la. Hmm. ko daan ñëpp audace lañ ko la waaw ko daan. mais Ama Baldé Gris Bordeaux moom du 50 50. ma jox Ama Baldé 60. Mhm. jox jox. Gris 40. Ah. waaw parce que mhm. Ama foofu noonu laa mën a defee mhm. la parce que Ama la daan. ndaanaan la. te bu nu xoolee li Gris bëree contre Balla Gaye. loolu laa koy jox. dëgg la mais na ko moytu. na ko moytu. na xam nu muy xeexe mm-hmm. Gris Bordeaux tamit. Mm. physiquement na taxaw. Mm. parce que keroog dañuy wax ne. Gris ak Balla Gaye seen combat commencement bi. Mm-hmm. Gris Balla dafa sonn. Mm-hmm. Gris ko gënoon a sonn foofu. ndaxte bu la sonnee. Gris songu ko xam na ni sonn na mais mënta dem. mënta dem dëgg la. waaw moom it na tefaru physiquement. parce que li leer mooy. amaa day fiir day fiir suis de day xaar xeex ak moom it mm-hmm. amaa xeexul ah mm-hmm. amaa xeexul amaa day bëri si je suis un Reug plus sa combat combat bu neex ak noonu na combat je la combat xale la loolu ñoom ñaar ñoom ñaar Reug Reug rek na moytu ni favori googu je suis un parce que Sa <laughs> la xamul nu muy uh-huh. bu mais bu demee ba ca biir. Hmm. bu bu yeewoo rek. Hmm. mën na def fa yëf laam. mais sa copain mooy ubbi laa mujj de grand affiche Siteu. Siteu waaw waaw sa gars yi Siteu Papa <laughs> boobu jàmm laa ciy ñaan. ah dëgg la waaw xam ne làmb la. Ah. xale yi xale yi bu ñu yàq waay. Hmm. supporters yi supporters yi. ah. yi ngay bëree dem fekk ay waaju yu jaay banaanaam nga yàq ko. maire boo xamante ni la muy jaay taabalam jooju ca lay dund dundale njabootam nga taaneel ko. fekk ku nit nekk ci otoom xamoo nu mu toogee ci otoom nga sonal ko. Mm-hmm. booyu nañ ko bàyyi waay. mais combat bu neex lañ jëm de si dafa waaw combat bu neex la. Uh-huh. combat bu ne bëree bëree bëree ci dugg ak mystique rek. mystique a tas làmb ja. Uh-huh. Ah, xaañ papa. Uh-huh. Ah. <laughs> làmb dafa garaaw de. dafa garaaw maa ngi nekk Amérique la ma fekk. ma xool làmb ji làmb ji lëndëm lool. ma ne ah làmb ji lëndëm na de. ah Bécaye moo dafay tëgg Diène Kaïré Gouy waaye dama koy dégg na waxaguma ci dara. Ah. waaw waxaguma ci dara. parce que souvent dina may woo wax ma daal ni ma père danga ma nanga ma. Ah. mais jën kay rek guy gi daal waxaguma ci dara. waxaguma ci dara. <laughs> Ah. fii sa Balla doomu dàngu. <laughs> non loolu ci ah dégg naa la. <laughs> non non du moo gën. ah du moo gën dafa am ku bëgg yooyu combat. ah dafa am ku bëgg yooyu combat. waaw fii sa Balla doomu dàngu. et puis yooyu yëpp day wane ni làmb ji dañ naan dafa. dafa jeex. lamb yi daanu na lamb wala ñaata komba taxaw. mënuma ko wàññi ñi amul combat bariwuñu. bariwuñu dëgg la xanaa sa copain moo amagul Lac de Guiers 2. Lac sama copain. waaw te xaw ma ko Lac bu ma doon naxaar nag mu yàkkamti de. Hmm. waaw léegi affaire bi jaxasoo. Hmm. février rek. Ah. affaire yi ubbi ubbi ko bu ñu dawalee décembre janvier février. Ah. affaire bi ubbeeku. mu dem mu dawal dàqante gaay ah, fin saison ah dàqanteeg ñoom. te lak lak tamit nag mbër la. mbër la xam nga lak gars yi liñ koy wax coow li coow li lak ñaata yoon la daanu benn yoon. benn yoon la daan moo ko Eumeu Sène. waaw en 2012. <laughs> Modou Lo daan ko par avertissement. avertissement waaw ah, Léopold Senghor ba pare ñu bëgg koo indil problème. déedéet. Hmm, la jàmbaar la de. jàmbaar la waaye itam mu xeex ak man. waaw sa waay la. <laughs> mais dama koy këram keroog ñëw na ci dëj bi. ndeysaan ndeysaan. ñu ngi fi jaale si. ci ñaanal tamit mhm. ah parce que loolu tamit lu rafet la moom ak macca mhm. macca mhm. booy boobu mbër bu baax a noonu macca booy macca booy macca mbër bu baax la ndeysaan waaw moom tamit maa ngi ko moom Aliou Seye baax ah. ah. ay booy yu bien la dëgg la yow gars yi la bëgg non sa gars la bëgg Sénégal la bëgg si boppam baax uh-huh. danoo baax baax mm. ko politique yi yàq. yaay monument Grand Dakar daal. non Grand Dakar bari na monument. ah <laughs> si biir monument yi nga bokk. waaw na ma bokk ci rek. incha allah bokk ci bi a ndaw rek. <laughs> mais Bécaye kontaan naa di la jërëjëf. kontaan trop waaw. def nañ tour de l'actualité. waaw ah waxtaan nañu démb. la jaanal. Hmm. dem ba mu nekk télé. amiin naa ne. yàllaay maye kenn moomul dara. ñu ndokkale le nouveau ministre Yankhoba Diattara mm-hmm. ah, di di encouragé Matar la mm-hmm. suñu yàlla na ko yàlla taxaw Yankhoba yàlla na réussir lu raw li Matar Ba réussir mm-hmm. yàlla na dem ba ci coupe du monde fu kenn foogul woon ah? fu kenn foogul woon nag mooy dem ba final final wala moo jël coupe bi yombul nag waaw nun danoo mën a rêvé nag

yoro depuis hmm. sama waay ku il est il est traditionnel quoi hmm. looloo tax hmm. mu neex ma xam nga tubaab ak tubaab tubaab yee ko jàngal waaye il est trop traditionnel bu xew lay ngénte bu ma ñëwul kenn du tudd ndeysaan bu ma ñëw mu ne voilà kii mooy sama géwal kër yoro Sadio laa dëkk mu dëkk Njaasaan kon ñun ñaan ñoo war a am waaye yooyu daf yu traditionnel yu am solo la ana mi ngi fi Ah. mi ngi rajo ñu ne ma <laughs> <laughs> jërëjëf. Iba waaw kontaan naa ci yow. maa la gën a kontaan. jërëjëf donc gars yi tey lii laa leen andi woon El Hadj Bécaye Mbaye ñu waxtaan bu yaatu ñaari émission dinañ jox rendez-vous prochainement ci beneen numéro.